bunt kër bu ngeen ko gis bat bu ngeen ko fa gis ah am de est-ce que mag ci këram dina tilim ah mu ngoog day nag maa ngi bàyyi ci kër muy tilim lu leer léegi nag yéen juróomi fan laa leen may

ngeen di saytu koñ la koñ koñ ngeen di saytu koñ pour lu fa war a am ak lu fa war a am bi ñëpp defee loolu responsable foo dem ak responsable am maire ci foofu la ak conseil dafa war a nangoo ci nangu boo gisee lu dul noonu nga dénoncé ko ñu faj li jàpp la farlu jàpp la laaj bu yomb a faj waaye damay xaar police bi ñëw mbaa gendarme bi ñëw mbaa ñoom dañoo minoritaire ak di wax la ko dégg civil yi ñoom majoritaire du dëkk réew mi lu jàggee dañ leen koy bàyyee ñoom rek waaw ah, dañ dafa am nu ñu leen di jàppalee